ñëpp jub taxaw ñu màggal waa kër Yonent bi la ilaha illallah استر الله لا تجران كافر Allah يغفر التي دار حامل وعلى رشاي لا تنسى ربك بغي ولا ضمائي ولا بخدرتي دار حامل وعلى رشاي واذكر مريدا يذكرك مريدا واذكر بملاء يذكرك بملاء لا اله الا الله الوجوه البعير في باطنه وظاهره سلالة الوادي اهدنا به لنا به الخشبي المغدري ولأبي تمام ولأبي تمام ولأبي تمام ولأبي سي عبد القادر جيلاني Did you mean you? Amen. <laughs> màggal yonent bi màggal yonent bi màggal yonent bi góor ñi yaa leen gore yaa leen gore yaa leen gore yaa leen gore jàmbaar yi yaa leen man yow Seydina Muhammadu Rasulallah Rasulallah Rasulallah Muhammadu Mustafa ku ko bëgg dem ak jana dem ak jana dem ak jana sopp dem àjjana dem àjjana ku ko tàntal dem àjjana dem àjjana bépp xol bu bëgg rasulallahi sa yàpp yaram araamal na saqara na saqara na saqara bu yemal qiyaame dinañu jàpp nit dinañu jàpp nit di ko woo mat di ko woo mat jëmale safara jëmale safara safaray arrière بأنها حملت بشفيع المذنبين يوم الفحر premier weer Adama ñëw ndokkeel yaay Amina ñu ko mën a digal mooy signe la. ñaareelu weer Cissé moo wàcc ndokkeel yaay Amina ñu ko mën a digal mooy Muhammad. ñetteelu weer ñu fa ñëw ndokkeel yaay Amina ñu ko mën a digal. ñetteelu weer Ibrahima Ismaïla wàcc na ci yaay Amina. juróom benn weer Souleymane wàcc na ci yaay Amina. juróom ñaari weer Moussa wàcc na ci yaay Amina. juróom ñetti weer Moussa wàcc ci yaay Amina. juróom ñetti weer Isa wàcc na ëmb yàlla jël ay picc yu vert yoo xam ne seen mbég yi wurus la ko seen laaf yi marjaan la ko composé ñuy naaw naan la ilaha illallah muhammad rasulullah ñoom picc yi ba teg buntu kër yaay Amina loolu dañu yàlla Cheikh Babacar yàlla jël ay góor lu bëri sañ seen leen ay sañ-sañ yu weex tànn kenn ku ci nekk boo xoolee seen loxo ya baraada wurus moo ci nekk. ndox ma jox def sax sa biir lu tudd jugee àjjana ñu koy xool yaay Amina ndax lu tudd Muhammad wa atafat ala bayti Aminatam tuyuuru manaqiluha min al-buruj al-akhdar wa najhatiha min al-yaqut al-duhri wa ra'at rijalan waqafu fi al-hawa'i bi aydihim ababiq min fiddatin wa sharibat min al-ahmar سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منهجة التي yàlla naa ko sën wota naa ko sën. xanaa soppu leen Seydina Muhammad di leen teral baax moom. وعليه يتفنن روح نسيمها يتروق العقل وهي قوت القلوب وغذاء الارواح بك سيدنا محمد لا قاعد روانتي سيدنا محمد اعلم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي منزلة التي يتنافس المتنافسون بك سيدنا محمد ولا رؤوف لا رأي وإليها يشخص العاملون jëfkat yu baax yi li ñuy jëf yàllaa ngi leen di jaglelee ci bëgg Seydina Muhammad wa alayha yatarawwaxul aabidun ñi nga xam ne yàlla gërëm na leen ñu ko amee ci bëgg نعم وهي قوت القلوب نتال نيجون dee la xolam dee li tax mu dee mooy bañ Seydina Mouhamed nit mi ngi dund mi ngi dund xolam du dund li tax muy dund muy bëgg Seydina Mouhamed wa hiya quutul qulub wa ghadaa'il arwaah wa qurratul uyuun ndekete seen maam mooy suñu ndoxi bët moom Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam moom dong mu dégg wajal sakinata libaasahum wal birra shi'aarahum wattaqwa damiirahum wal hikmata maquulahu والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه محمد والحق شريعته محمد والهدى إمامه محمد ويسلم أهدى به بعد الضلالة مو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعكفت على بيت أهلنا صلى الله عليه وسلم maami Serigne Dieye. ndeysaan ndeysaan. kenn gënu la. wajaxal sakinata libaasahu. ma dem di la ñu. yàlla jël. yàlla jël. maami Serigne Dieye dara. yàlla jël. wajaxal sakinata libaasahu yàlla jël ak baax. ndax Touba te loolu ba tey nag moo am xaw ma nag ba xam bàyyi ngeen si xel wala moo tax may di fàttali na ngeen gën a. bëgg waa kër yonent bi na ngeen gën a bëgg waa kër yonent message bi maa ngi koy lancé bépp tarixa ndaxte kii fu waaye am suñu maam moo ko waral Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon boo nee fii nga bokk foo mën a bokk ngay rombanteeg waa ko yonent bi te joxoon seen cër wallaahi ëllëg di ko layoog yonent bi di ko layoog Fatima bint Rasul moom mi nga xam ne yonent bi da wax na ni Fatima bidaa mi nii dogit la kon li Imaam Maalik waxoon rek laa di fàttali yaa ahlal rasul hubbukum rawdatun min allahi fil qur'ani anzalahu bëgg leen farata la bëgg waa yonent forcé la julit xew-xew bi neex na lool ba tabaarakallah waaye kenn rek moo ko waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njabootam yi nga xam ni ñu ngi dox ci kaw suuf ba tey mu mel ni nag àdduna daf leen du mooyu boo déggee ma loolu mooy que ni ceeb bi leen waroon def dafa des geesuwaat leen waa kër yonent bi balaa ñuy dem bisu penc ndaxte fële de ñoom rek ñoo ko moom fii lu fi waay mën a am li ngay gis koo xam ne topp yàlla bëggul yàlla am na ko ci wàllu koom-koom yére yu rafet ak lu ne nit nag mën nga jàng wàccee téere yi waaye mënoo wàccee deretu Yonent bi ci sa yaram yàlla moo ñu programme nag def ñu nekk ay sëtam ñu am mbégte lool ci loolu soxla wuñu leneen doy nañu rek doy doy nañu rek kese ñu nekk ay sëtu Seydina Muhammad doy nañu kese jërëjëf ñu nekk ay jaamu jaamu jaamu Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel ibnu Mayni ni ko Cheikh na Cheikh Saad waxoon wa yàq bi pour billahi andi muridu doy na ma ci jege yàlla ma nekk taalibeem taalibe kat Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel ibnu Mayni ma leen di baaxee tuuti rek kan mooy Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel ibnu Mayni mooy ki nga xam ni moo nekkoon xalifa rasulullah si pays yàlla yi di góor yàlla yëpp di daje Cheikh Jassar bu wax nañu ni moom kese la yoon ci jugal moom kese mooy ñëw ci seen réunion yu mag yooyu bu ñëpp toogee moom rek mooy dugg si si salle bi yonent bi jub taxaw gataddu ko Fatima xëcc ko accolade ko gauche accolade ko droite ni ko antalit waxret awlaad yi yaay sama fierté yow Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel yëpp kooku yàlla may téeméeri doom 53 garçons 47 filles ñëpp mot fa yàlla kooku mooy maréchal Cheikh Sadbou kooku moo dund ba te bàkkuwul kooku moo dund dund dund ba tabarakallah génn àdduna ñëwaat amaat doom kenn deful loolu kon ñun nag sant nañu yàlla bi ñu ko yàlla maye ñu koy tiituroo dara dara dara dara mënul rëy su bët ndaxte doy nañu rek ñu nekk ay doomu Cheikh na Cheikh Mouhamed Wahab ibn May may ñaaxaat xaadir yi nañu gën a gëm gëm alhimmatu am volonté ci li ñu doon ci li ñu doon waaw ndax kat ragal fii te day xañe wërsëg man Cheikh na Cheikh Sadullah gëm Cheikh na Cheikh Mouhamadullah mooy daw ci sama dret gëmuma leneen lu dul moom te fi ma toog wallahi alazim su ma neexee fi ma toog léegi nekk ndox ci barke Cheikh na Cheikh Mouhamad moo tax fi mu mel nii na leen gën a jàppaat ñu gëm xam ni Cheikh na Cheikh Saad Bou tëddul woon di nelaw li ko dugaloon Sénégal du moom nekk woon ay caaxaan dafa waxoon bi mu ñëw Sénégal yaa rabbi wajal ñu may jaddada diine nabi ahmada yàlla boole ma ci ñuy beesal sama diine maam Mouhamed waaw ah, ñu ñëw woon fii pour wut alal ñëw woon fii pour wut ay taalibe loolu is dañ ko umpale Saad Bou da koy wax bokkul ci course bi ak ay dëgg Cheikh na Cheikh Saad Bou bokkul ci course bi bokkul ci course bi moom li tax muy woy Cheikh na Cheikh Saad damay damay noonu benn exemple bu ndaw rek laay jox maanaam lu ñu di def rek na nekk dëgg ci dax ndax la da ngay gis ci suñu tarixa bi ba tabarakallah bokk na ci waykat yi yi ñuy gën a dégg kenn ki mu ngi tudd Cheikh mu ngi tudd loolu ay misaal la bàyyi xel gën leen gëm gën leen gëm xaadir yaay laay waxal gën leen gëm dañu am ñu xam ni change sa bu ku ko jàpp am àjjana waaw diw diw diw da diw ci waa jooju ba noppi change sa bu li mu wax dafa leer waa ne woon bàyyi ay ñibbi ummati ak kullahu baabu naimi jannati képp ku jaayanteeg man yàlla dina la jox àdduna nag moom ay naxee kese la adduna nay naxe kese adduniya mal'unatun wa mal'unun adduniya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa alimun aw mutaallimun aw mu'iduhuma ñett yi rek am solo ci àdduna borom xam-xam ki sàkku xam-xam ak ki xeet li ñaar noonu gis des yëpp ay naxe la ci yaatal la nañ leen gën a dellu ci ragal yàlla asikum bi taqwallah nañ gën a dellu ci jàpp yàlla nañ leen gën a sellal nañ leen gën a topp yàlla wasalaam ngeen tal loxi bismillah rahmaan rahim ربنا بشيخنا سعد الأبيه يا ربنا يا ربنا وبالأبيه وبمحمد الإمام ربنا تولنا واصلح لنا شهدنا وكلنا بالحفظ والتدبير والعز والنصر مع التيسير بجاه من بجاهك كل المراد المقدم صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله وسلم الله كريم الكافي وهاب الباسط الفتاح الرزاق عينه المعين المتفرد اسالك بسلامه تلك الحافي الذي لم يتل عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ان تفتح لي من مواهب لدنيتك فتحا مبينا مسهلا لما تعصر حتى تفتح لي ببركه اسمك الفتاح فتحا قريبا مؤيدا لما في القلوب والاسرار كاشف كل هم وهم انك سميع الدعاء وحقق لكل رجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا الله شيخ محمود خليفه بي ak suñu waajur bi Cheikh Mamadou Abdoulaye Seck ak suñu waajur gi Badiane Kaaw moom nga xam ni tabarakallah mbaaxam ñu koy wax ni ko jógee moom ak Cheikh Mamadou Abdoulaye njabootam ñoo dëkk fii santaan di ñaanal ak njabootu Badiane Kaaw ak njabootu Cheikh Yuntulaan ñëpp yàlla defal leen jàmm bi jaay nabi Moustapha sallallahu alayhi wa ndax nag yéen a tantal yeneen ci biir tantal Cheikh Yuntulaan kon xam ngeen seen bopp kon na leen yàlla gën a jàpp yàlla na yàlla jàppale sama taalibe yëpp rawatina sama taalibe bi soxna Anta kontaan naa ci moom bu baax ak njaboot. jamaa la yàlla njëkk a bind moom jamaa muy nase nase ba mu yàgg mu bind ak lëndëm lëndëm yu suul jamaa yàlla xool la nam di ko xaar yàgg mu bind ak leer leer ñëw dàqal lëndëm yàlla xool leer di ko xool ba mu yàgg mu génn ak leer ko ñeenti xaaj bii di xalima ga bii di yàlla wéy ma foos ñetteel ba di aras ñetteel ba la xaajat ñeenti xaaj bii di di bàq yàlla am la ni di asamaan ni bii mu bind ci ni bii mu bind ci